war a amee et bi ma téyee nii di ko toxee waru gari daraay fa bi la bu gisee silmaxa ame et war Dakar sax silmaxa di ut ku ko jàllale dafa war a taxaw pour mu war a jàll looloo tax at mu jot ñi ko yëgal nit ñi di ko sensibilisation di ko def daaye daraay fa yëpp xam moo tax ñi ko tasaare gox bu nekk xam ne lii dafa war a silmaxa bi di ko amee dafa war a ñuy dimbale silmaxa bi moo tax ren ñu jëm mañ sa konko talaata ñaar fukki fan ak juróom ñeenti incha allah mm-hmm. boo xam ne ah boo xono bi moko jité ak kii fi nek fofu yëpp su ko defee ak goubi président bi nga xamné ne la laa fi tay ak suñu directeur bi ak goubi board bi ak suñu branch bu nek da nga ébal ñaari nit ñun ñëpp ñu téw soma soma lañ ko fas défé defee sew nga xamné ne kër yi bossé dem ba area council fofu lañu gadaré garalé ay cadeau ñu ko waajal nak ñi ngi ñi nga xamné ne bisbé bis ñu ñoo jappalé nak ku melni ni gamset an mu jot moo ñoo dimbale ci tiisaat taxaw na ci te fas yéene am na ñu mel ni saa sebas ñu mel ni ak sa ñëpp dañ ñu dee dimbale kon ñu ngi wax ne bis bi jege si na ñu ngi koo waajal ñu ngee taxaw bu baax baraañ bu nekk sa leetar dem na sa délégation bind nañ ko ci góobe incha allah ah dinañ ko taxaw dinañ ko waajal ma bàyyi Abdou Assis mu yégal bokk yi ndax ñu nga jëm sooma te sooba bu ñu fay jëm rek ah war nañoo soose bu baax a baax a baax ramatulaay waaw Abdou Aziz mm-hmm. ah, su ko defee yi nga xam ñu ngi seetaan programme bi mm-hmm. ñoom tam ñu xam lan moo waral bés boobu noonu ak mm-hmm. fan la ak ban bés la tamit waxtu bi comme ñu bugg a dem jàppale leen tamit soo leen amee nomba boo xam ne mun nañ see jaar ñoom tam ñu mun leen a kool ndax ñu yokk seen loxo Abdou Aziz ini mbaara na sista ramatulaay mbé mbaa fuloo la konto ndiroo la mm. eh, ñin du mi wala mi ñi eh, mi ya ko e eh, sanjo ni sanjo na renka jing e eh, do ko koyo celebrate le ka celebrate dum every october 15 october nan dum ye lungo ñim pous e eh, bayri ngal ya be albe ya ko salo na 15 mhm. sa na ta sound fo 29 andu nan dum abe kelamintor wala e jang manso konko mm -hmm. mimu jara somati mm -hmm. andu niaje me ni do doko koyo jura la mhm. ba jura pour ka yitan ni mo la ko do ko koyo mil eh, min ñamuta jimin tel e kañin dokole ta ka ke kela hajol tama eh, anu ni kata fana silo ka e kañin dokole yus ah, anu nin na alfa al be sirin jambi nata ka itani molla ko nyin doko koyo mi yalon ko na alpha mi muta teng me wore la ñin eh, nyin talato min kana mba jura min to wole jara suma man sa konko tundoto anu chifol nin bije il bebe funde dana ani gofanol wol fana be lola je ka itani molla ko ñin doko la kumaya ani jimin tel mi yalon ko e mutata e ñanta min kala foy e kañin doko ta ka yus ni kata la hajol la wala e kata silo mol kam mutol silol kunti kam manol kuntu kata ila hajol la mm. damtule ok uh, eh, ina mbara bake abdou aziz diallo mi sikkida nani pular ka e ina wawi yodde pular kadi sabuna yimɓe ɓen fof no darde gambia eɗa andi ko mhm. ko enen fof tawa mhm. mhm, haala seeɗa e eh, pular comme ramtula rek eh, miɗo hirawde kala wonɗe darde fen ɗo e télévision on mbiɗa haalden ko ngal leggal ngal anndaɗaɓe guite mum nangue ɓen gaɓe ƴettata ɓe yaara e haajuji maɓɓe ko ngal min foti juurade e ñalande noon koye talata o waro ɗo e hikka noon komin faala wadde juuragol ngol ko jarasoma min faala wadde juuragol ngol jarasoma ɗum woni lowri foti region e eh, mansa konko e eh, hikka noon juuragol ngol weela e moƴƴo sabna so yi chief bi wonɓe hede toon ɓe fof ɓe yaltitayi ɓe fof ɓe aray gofonoji ɗi garay ñalande eh, ñalande ko talata bo talata aroɗo ñande noga e jeenayi e duwlewru e, ndu wonde mm. e sabuna so yi meɗen juuro ngal leggal ko hollugol yimɓe ɓen ne si gite ma nanggui mm. hiɗa heeɓi leggal ngal andanɗa ko ngal foɗɗa yaadude e nder laawi ɗi e nder motoji e dow taleji mm. pour ɓe hollamane an kadi a wawi yahande hoorema waɗa haajuji ma hara a habbaki goɗɗo wallama yaha hara habaki kadi goɗɗo hollama lawo ngal kuugal ngal jogota ngal hollatama ka waɗa yawde e kadi ko ngal hollatama saɗa fokkotire e nder gay ka walla ɗa waala natude ka annanɗa gañete mm. eh, ɗum waɗi meɗen juuro ngal leggal hollugol yimɓe ɓene ɓe hi mo annan ana guite mum no nanggui no jogui sifa ngal leggal mm. yo accu hakkil wallito on tigui ha heeɓa no yawtira hara gañaki mm. walla hara tampinani on tigui ha sakko mo e lawol makko heɓa no yara ko hajiji makko ok a jarama abdou asis anti ñu ngi fi wax lu am solo maanaam banda bi nga xam ne ay silmaxa moom lañ di téye suñoo bugg a jàll tali bi bari suñoo bugg a dem doxi seen soxla mm. mu nekk lu am solo nag ah, waaye buggoon nañ tamit ah, nga wax ñu comme am na ñoo xam ne xëy na ñu bugg a bokk ah, si programme bi xëy na duñ xam naka la ñoo demee ne da ngeen tiral ay ay ay waruwaay yoo xam ne na yóbbu nit ñi nga xam ne ñoo jógee boor bi mara ñuy jógee ay base dem ta seeji sooma waaw noonu lañoo def eh, because eh, ci réew mi dañ am fukki banxaas soo dee gis ne bànqaas yooyu noonu ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooñu la ñoo taana eh, si bànqaas yi lañ leen a taanee su ko defee ñu dem bànqaas bu nekk dinañ fa taana ñaari nit góor ak jigéen su ko defee ñoom dinañ ñëw tase eh, LRR ñi nga xam ne ñoo dëkka boor yi nii ñoom dinañ ñun dinañ dajeeg ñoom foofu noonu eh, ñu jël leen ñu àndaa ñoom ñu dem LRR waaye nag fii dinañ fi jëlee ñu nga xam ne ñu ngi fi mel ni xëy na eh, xale yi nga xam ne ñoo nekk si school bi mm. ah, ba pare bu ñu demee foofu noonu tam dinañ xam naa ne foofu ay school eh, ñi nekk si school bi foofu noonu tam mm. dinañ fa nekk because dañ bëgg mu nekk match pass boo xam ne da ngaa sensitise nit ñi mm-hmm. what is the essence of this white cane mm-hmm. mooy lanay njëriñu white cane bi mm-hmm. ndik white cane bi waaw et bi dafa am solo looloo tax ñu def ko et bu weex mais xam ne su guddi sax su fekkee ne moto bi laal waaw su ko defee et bi moo nekk noonu ah, ah, su fekkee waaw bi mooy et bu weex bi nga xam ne nga xam ne moom la silmaxa bi dee njëriñoo li teg si yeneen dëkk yëpp soo demee sax dafa nekk loi pour da nga war a jëfoo aide bii nii soo ko jëfoo wutee lu la lu la jot nga xam ne yow yaa ko teg sa boppa yow mi nga xam ne yow yaa silmaxa bi soo jógee fii nii dem Angleterre lu ñu la njëkk a laaj mooy mooy ndax danga nga white cane literate ndax da nga are you oriented or do you know the use of orientation and mobility so loolu lañ laa njëkk a jàngal si any institute pour eh, selmaxa yi eh, visual impairment soo demee rek lu ñu laa njëkka laaj mooy ndax yow dañ la jàngal orientation and mobility mhm. loolu comme mel ni dafa dafa compulsive ba nga xam ne eh, soo demee si yeneen dëkk yi foog nga mun ko so li ñuy wax loolu mooy for the safety of the visually impaired mhm. because ay white cane façon yu bari moo am am na symbolic cane mhm. mooy ki nga xam ne dafa am low vision symbolique kenn mooy bu nga xam ne dafa gaata mm. nii soo ko téyeree nañ xam ne kii dafa am problème yi bët mm. am na bi nga xam ne mooy long kenn mooy comme bu nijaay Moussa mm. téye ah, nii boobu mooy totally blind koo xam ne dafa amul dara dara si gis-gis eh, loolu nañ loolu lañ dee use soo di nga gis ne eh, lool lii dafa baax trop pour safety bi mm-hmm. pour safety eh, selmaha mooy pour lu ko aar so di gis ne wol wol white candy dafa important bi nga xam ne ñun duñ ko dee bugg de desal gannaaw. dafa mel ni dafa mel ni ñaata at léegi yéen a ngi ah, celebrate lii. ah di Ndiaye Moussa foog naa di ñuy mun a eh, wax ñaata at lañ doon celebrate lii. ah lii daag fu ne nii ramatulaay bi ko dooree ba léegi mu ngi yàgg mm. ah, ndax ñun bi ko dooree Banjul ak KMC rek lañ ko daan amee mm. waaye ci addina bi yom ñoo ko dee màggal gubi gis ne nag programme bi ñoom it duñ ko dee desal gannaaw dañ cee taxaw bu baax a baax wan driver yi ne leen te ngeen war a dimbale silmaxa yi ci jàll bi wane borom welo yi wane képp koo xam ne yaa ngi nekk di jëflante eh, tali yi war a dimbalante ak silmaxa te silmaxa waru garam la mooy mu amee et waaye di doxta amee la wóorul ci silmaxa kon loolu réhabilitation la boo xam ne ah ñun projet bi tarawale loolu moom laa njëkk jàngale képp koo xam ne silmaxa nga ñëw li ñu laa njëkk jàngal mooy naka ngaa doxee et bi jàngale di duwul nga mën a ñëw maanaam maanaam dafa mel ni et bi mboolem ku dem si góob bi dañ la koo jox dañ du seer ramatulaay waaw mhm. ah, boo ko seetee xaalis bari laa jar mhm. alhamdulilah pour am ko jëfe na mhm. waaye ñu ngi gërëm nag ay kii ay yu ne naam ñu mel ni ay sumaana dañuy tee dimbale léegi am nañ ko ci guubee léegi ñu ngi koy joxe bu baax a baax te bu ñoo dem mañ sa konko dinañ yóbbaale pour ñu amut mhm. ñoom it ñu mun leen koo jox waaye ku gis ne silmaxa daf ko de amee waaye léegi-léegi borom yàlla ñëw lonk ko mu dammo mhm. wala nit dox mu damm ko te et bi dafa seer de parce que da nga ko dee mun mhm. ne sax da nga a lem dugal ko sa baak soo dafa utee ak yeneen et yi nga xam ne yooyu la ñoo use because boo xam ne la dañ ko dee defar ñu ne for the safety of the visually impaired mm-hmm. ah, su fekkee ne yaa nge yaa nge cross tali bi soo ekkatee sa aide bi si kaw mm-hmm. warugali driver bi la pour mu taxaw mm-hmm. su taxawutee dafa mel ni ah, soo ko amee guddi eh, daf daf dee dafa reflect ok waaw Abdou Aziz wax waa loolu tuuti eh, comme ça comme eh, man tam ci organisation boobu laa jaaree foofu laa jàngee ndaxte waaj kenn bi dafa am njëriñ even si youth si seen bopp surtout si mag yi ndax soo ko seetloo yow soo ñëwee si organisation balaa ngaa def dara dinañ laa jàngal nga mën a use waay kenn. ok yes wow. okay ni wako sipol tame eh comme ça legal ngal wonde haalde ni ngal mm. a yi ngal legal ɓe ɓe jangina ngal hay sa ari ka organisation ko en ka ɓeynata goofi ɗo ɗo ya janngude ko ngal legal ɓatatama jangguinde honno yarata hara ha baaki goɗɗo walla ma yaha mm-hmm. ngal legal ɓe hollirtama siɗa ƴawde a foɗɗa ƴawde mm-hmm. ay siko jemma sa ngal si mm-hmm. moto lampe o memi ngal tum a yiyay ngal jalbay on tigui anda hiɗa jogui ngal legal oɗo ko guite mum nanggui on to ɓe waɗay feere ɓe walla ma no yewtira lawol ngol walla sa hewti e gayka kadi leggal ngal si jalbi rek siɗa wonde goɗɗo oɗo dumo wallete ɗum waɗi ngal leggal ngal waɗi e, ngal wondi e, e, e important pour jangingol yimɓe ɓe ɓe mhm. wawa hettude hoore maɓɓe mhm. wawa yahande hoore maɓɓe haray goto nanggani ɓe mhm. ngal leggal ok jarama abdoul asis anti dey yen lan lan ngeen yan yan sàcc a mun